xam nga man Sonko waxtaan ak moom par personne interposée bu mu nekkee bu mu nekkee kaso mhm. bi ma xamee ne gars yi dañuy commencé ay manigance pour jéem a dax élection yi man dama jàppoon bu ñu bëggoon dàq élection yi rek dañ ciy dugal benn piège. Hmm. donc c'est même pas garanti que bu ñu ko dàqoon Sonko dina bokkaat. dina bokk donc piège la woon quoi. ok mais man ni ma xamee nit ki am na koo xam ne ku ko jege koo xam ne waxtaan ak moom yónnee ko ci moom. Mhm. ma ne ko man de. du ma wax Sonko lu mu war a def waaye sañ naa wax man bu ma nekkoon place am lu may def. man mooy que ni comme joxoon na Diomaye bi adduna yëpp xam ne moom Diomaye mooy candidat am bu mu sa dellu ci ginnaaw. na tënku ci loolu. kooku bu mu demee commencé ko wax Sonko mu ne ko déet déet jant moom. na xelam dal na xelam dal parce que li muy wax nii man noonu lay def. foofu nag la problème bi nekkoon certains étaient pour que Sonko nangu loolu moom mu mën a nekk élection mu nekk candidat. mais Sonko du ko def parce que Sonko nitu kaddu la xas na benn nit ñi. man Diomaye mooy sama candidat. def ay vidéo boo xam ne dañ buñ ñu koy projeté xam nañ ne bu mu koy def boobu il était chez lui. Mm-hmm. kenn jàpp ko woon mu nekkoon mu nekkoon kaso. donc loolu jib na ba pare du mës dellu ginnaaw. donc cette proposition du régime d'alors vous y voyez benn piège. c'est un piège. ok parce que ñii mësuñu xalaat un jour qu'ils allaient quitter ils allaient pouvoir. Mm-hmm. donc bu ñu demee jaay doole xam ne loolu mënul antu. dañuy jouer un peu à la ruse. Mhm. waaw aparté la proposé la dara. voilà pour sa bët gis ko. nga ne ah xaaral. mais ils étaient euh, confrontés à deux obstacles le premier mooy li may wax. Mhm. Ousmane Sonko nitu kàddu la bu xasee bi joxe kaddu dellu ginnaaw. Mhm. benn deuxièmement aussi Sonko dafa jàppoon ni élection yi te il a dit quand il sorti euh, sa première conférence de presse sénégalais yi bu ñu woon lenn lu dul dem élection. bu ñu demee élection ba ñu xam ne euh, dañuy tànn seen jiit. ñoom dañuy fexe ba régime Macky Sall Macky Sall ak lépp lu xeetoog Macky Sall ñu mm. jëlee ko fi bu ko defee ñu xool leneen mm-hmm. donc Ousmane Sonko avait estimé que loolu kenn war a koo mën a xañ sénégalais yi mm-hmm. ñu mën a dem élection tànn seen jiit d'autant que pour une première fois dans l'histoire Sénégal dañuy dem élection boo xam ne le président sortant ne serait pas candidat